27 février 2019 27 février 2020 at ginnaaw bi Marianne Siva Diop dëddoo àdduna naqar ak tiis di wéy di nekk ci xolu doomu aadama yi ko jotoon xam baa sax ñi ko doon séen ci tele bi mbokk xarit collègue am di jàmm di ko fàttaliku Marianne yoroon ay jukko yu soppalu ba tax na du juk ci xelu nit yi. te du dara lu euh jugé ci place dem ci place parce que après suñu waxé dé après dafa am leneen luy xew maanaam euh, dee na ni gisatuñ ko mais nit ki fay jugé fi ni ci aduna dem fi nga xamni modi di bar sax te fofu su boba dafa am ñow fay dëkkaale. dëkkaale bi nak dafa am solo te oustaz papa ya gëna wax tout temps ni que ku nekk ki nga xamante mom nga sopp fu mu nekk fofu ngay nekk fofu ngay nekk. am ci demam bi yàlla wane na boppam ndax Mariane nee naa lu bëri feeñoon na si Mariane mais bi mu demee lañ gën a xam kan mooy Mariane ndax bari na loo xamante ne mu ko doon def mais bi mu bi mu bi mu dëddoo bi mu génnee àdduna si la lu bëri feeñ donc mu nekk loo xamante ne daal lu ñuy santee yàlla la. Eh, yalla moy bolé ay nit nit mën ngeen baña bokku nday mën ngeen baña bokku bokk ngeen gëjee bokku ci aras eh, mais seen digënté day mel no xamanteni sax nit bokku nak nit nday ak bàyyi ti digënté bi melul nonu donc eh, defe naa vide le la am mom ngeen am parce que xamna seen digënté ak sa digënté ak Marianne mom lañu am aussi ci ñun ñu doon liggéey ak mom donc une année de de vide mbir bo xamné la damay togaat ba damay tok ba yag rek ma tok mani man non mais kon Marianne dem na ni quoi donc affaire bi man ba léegi mënu ma ko c'est pas que du ma ne mënu ko accepter mais daf ma bett xam nga rek lu la bett mën la donc euh, bon lu yémé le parce que âge bi mu démé elle était jeune xam nga à la fleur de l'âge xam na bari woon na ay projet yu mu nekkoon bon je pense que aussi nit ku proche de son papa donc xama nga boko yëpp donc ñun aussi ak tay fi nek nekk xama am ay dom aussi xam dom ak euh, parents ni mu mel c'est c'est difficile daal c'est difficile on aurait aimé vraiment mu nekkat ak ñun lu ñu la dal donc ba tay un an après gawna mais man ba légui dafa nek choc si man en fait parce que damay toog ba yàgg ma donc c'est c'est fini quoi on la verra plus quoi et ça c'est pas c'est pas facile à gérer gëm peut-être tax sax nga continuer à vivre normalement sans pour autant nga focus euh, ci tristesse voilà donc euh, bu dul woon gëm-gëm bi sax mën na indi ay tialit ndax euh, sa que ko sa sa sa sa xol mën na jeex sa yaram mën na daw mën nga am lu la naqari parce que xajoon na fi. dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañ koy ñaanal ba euh té loolu la gëna soxla ku ko ñaanal té Marianne nekkoon na sama xarit nag trop waaw parce que euh, dernier rendez-vous bi nga xam ne daje nañu Saint-Louis du Sénégal la woon muy tournoi de judo mbay booy euh, mu nekkoon loo xam ne defoon nañ ci ay photos sax yoo xam ne après par la suite génne naa ko mais Marianne euh, boo ko boo ko jegewul trop doon waxtaan ak moom doo xam exactement li muy def wala li mu bëgg doo ko xam loolu rek pour firndeel li ñëpp wax c'est-à-dire euh, dafa dafa mon discrétion boo xam ne dafa jéggi dayoo. mais dinaa la nekkoon na xale boo xam ne bu calme benn moment mais dinaa dégg benn moment aussi liggéeyam moko moko moko changer ni mu xumbee woon mën a kaf mën c'est vrai que si loolu la yaro mais benn moment dafa nekk xawoon na agité donc je pense que liggéeyam moko moko moo ko ko may. dafa nekkoon xale bu bu xamante ne moom mu mooy caatu gi. mais defe naa ambiance bi doon am ci biir kër gi moom mi gënoon a tuuti moo ko fi doon indi parce que yàlla nature am la yàlla moo ko bindee woon mu nekk nit koo xam ne dafa xaw a yëngatu xumb donc xàmmeewul ku ko mag xàmmeewul ku ko diitoog yooyu donc kaf bi daal vraiment mu nekkoon nitu jaamu nit koo xamante ne amoon na fulla si boppam ndaw lu teeloon xam li mu bëgg am ay objectif am yu mu jotoon a tracé lu bëri mu buggoon ko mëtal def mais yàlla def li gën daal donc mais sant nañ yàlla côté boobu. donc mais li ma mën a wax daal maanaam mooy Marianne kër gi mu génn foog nga yëg ndax Marianne mooy koo xamante par exemple neexoon na jur si li ma expliqué mën a expliqué parce que koo xamante ne sonaloo say waajur ci dara donc say frères say sœurs ñëpp nga yërëm nekkoon seen xarit nekkoon seen wétal donc ku mel noonu kër gu mu génn di nga ko yëg tey ji muy xarit di collègue di promotionnaire di frère comme muy sœur Marianne avant tout euh, sama jumelle la Marianne sama jumelle la defe naa loolu ñëpp xam nañ ko mu nekkoon ku ma jege nekk sama xarit ñu daan diisoo si du nekk duma dugg si loo xamante ni da koy ump moom aussi pare vraiment euh, demam nekk lu ma affecté ba léegi defe naa dee moom du loo xamante ni nit mën na ko miis. metti rek metti comme ni ma ko doon sentiré ba léegi man euh, comme ni ma koy waxee chaque jour Marianne mënul dañ sama xol munuma ko fàtte ndax euh, dem bi moo ma bett dem boo xamante ne préparé woo ko nit bi feebarul dara jotu ko nga jékki-jékki comme ça rek taal benn sit internet gis ñu def ne Marianne dafa génn àddina ba tey loolu dafa may dafa nekk ci man ba tey mënul dañ daal nakar rek ba léegi nakar lu metti mais sant yàlla parce que yàlla moom lu gën rek lay def te ku mu jël rek euh, heure dafa jot ñun ñëpp dinañ dem donc euh, di ñaan yàlla may ñu lim ko may ndax euh, macha allah. ñëpp ñu ko wóoroon kenn ku ci nekk am na lu la Marianne bàyyil comme souvenir donc mu nekkoon loo xamante ne vraiment manqué nañu mais dama ne dafa gën li may wax ne naan ku mëtal dem nekkoon na fi nekk nekk bu rafet vraiment ak ñun ñëpp muy paa bi muy sama frère et tout la nekkoon nekk bu rafet metti na nag parce que la fi bàyyi. jóge na fi ba may jiitu avant muy dem maire bi moo jiitu suñu waajur bu jigéen moo moo jiitu donc déjà loolu ñu ngi ko doon jooy pareeguñu lii ñëw dalaat suñu kaw dañ koy nangu parce que ay jaam lañ te lu dara waruñu lu dul nangu ndax koo xamante ne da la da leen jox te tàgguwuñu kooku buy jël aussi du yëgle donc dañu dellu rek santaat yàlla si lii mu def. am nekkoon nañ koo xam ne vraiment ku baaxoon dafa baaxoon ñu baax ci moom it. li mu nekk fi góor baaxu dëgg la demoon di rek moom ak reetaanam mosul mer mosul tooña nit mosul seet ñëpp la daan am ak jàmm ñëpp la daan am ak jàmm te vraiment man de sama bopp li a waxal du mu duggee fii foo mu seetlu ma ko ne jàmm yegg na fii foo mu yegg fekk ma fii nuyu ma wax man ci jam ak solo ne nekkoon ak moom. dama ko yëgee euh, dama xëyoon matin bi. wara dem liggéey mais sama yaram neexul woon sama yaram euh, deux jours de suite sama yaram metti 10 donc bi ma jugee euh, xëy matin bi ma jug war a dem liggéeyi réveil bi sonné je me sentais pas bien ma fay te daat bi ma toogee defe naa ba ay 8h 9h yooyu su ma juumu ma jël sama téléphone rek di des di xool sama d'actualité Facebook ne ko ma gis ñu non non allahu akbar ma Nous lu automatiquement amna lu xew bon ma ah. comme annoncé Facebook on n'a pas développé xam dem tal télé ba xam légui bi ma dem TFM automatiquement gis ñu def photom ci web bi non ma ni déedéet ñi dañuy foo non non lii mënul nekk. daaw ci heure bi ci bëccëg bi bi ñu yeewoo euh, ñu ne ñu njool suñu benn collègue euh, génn na àddina. quelques minutes lañ ci teg ñu ne ñu Marianne tamit euh, décédé na ci koo xamante ni veille bi waxtaan ngeen ba 21 heures dara jotu ko jàmbatul dara ñu xëy rek 11 heures ñu ne la Marianne dem na donc loolu euh, man li ma gis ci biir Futurs Médias mosuma ko fee gis parce que d'habitude bu dëj amee wala bu nit génnee àddina euh, góor ñi ñooy gën a dëgër. jigéen ñi ñooy jooy et tout ça mais keroog kër gi dafa meloon ni tremblement de terre moo fi am amul góor amul jigéen amul directeur amul gardien foo toll di dégg ay yooxu ñii di daanoo fii ñii di daanoo fële donc nit ki moo moo tolloon noonu et c'est après que euh, tu te rends que relation particulière bi nga amoon ak Marianne du woon yow ak moom kese. ku tedd a ngi nii. ku ko xamni ko xamni bi mu duggé groupe Futurs Médias ak légui bi mu duggé groupe Futurs Médias ak légui bo ne ko jak diko ko bo boo ne ko jàkk di ko sa xel dina dem ci diiné sa xel nak dina dem ci diiné aada bi rafetone aada bi rafetone daf ko jël. daf ko jël. l'islam jël ko. l'islam jël ko. Marian def ci bop nit ñi. Marianne def ci bop nit ñi. pour ñu jël. pour ñu jël. aada yu rafet yoyu aada yu rafet yoyu gannaaw formation bu mu amaloon ci ab école de journalisme. Mariane Siva Diop nekkoon ku xarañ ci liggéeyam doon si def àq am cawarte lool lépp rekk ngir bañ ku ko jam elle la femme à tout rubrique gëm-gëm bi mu doon animé ci émission yeewu leen ñàkk kàngam tey famille arts martiaux ak ñamu nekkaloon ci groupe Futurs Médias di ko jooy sport yàlla dafa def ku nekk dañ lay jagleel benn pàcc nga di si liggéey ba pare ñu jox la ci aussi totale autonomie donc arts martiaux vraiment mën nañ ni que Mayane représentante bi xam nga mo moo doon défar mo mo doon fexé pousser art martiaux yi pour ñu ci am visibilité du benn yoon du ñaari yoon chaque jour mu ne ma ne ma tey invité bu ma amulee invité ne ko waa léegi Marianne arts martiaux yi nak mu ne ma ah, tay ñun ño xewlé mais da siy sonn xam nga indil ma ay invité demal defal ma ay reportage donc tay même wa art martiaux ñom yek nañ seen bop ni que tay ki leen fi daan nekkal ki leen daan défaral ki leen daan jàppale

donc bi ma demee foofu ñoo man kenn gisuma presse bi ñu si bëri ñu ngi ñëw après bi affaire bi waaj a jeex ma ne xoolal Marianne ndeysaan loolu wax naa ko fa de nee naa xoolal rek Marianne ndeysaan yu bëri manké nañu ko wax rek mu daal ne c'est vrai ku mel ni Nafi Guèye Nafi Guèye soo waxee mu ne ah waaw vraiment nak Marianne nous manque euh, li li mu ñu daan euh tay mu xey dem euh, defe naa manké nañu ñun ñëpp ah parce que ku xam Marianne xam ni euh, comme tu l'as dit euh, daawul def rek que rubrique am gëm-gëm ci biir euh, yeewu leen bëri na ay émissions yu bëri yoo xamante ni daawuñ ko ci gis mais ci ginnaaw moom moo daan moom daan coordonné ah comme sport à une man bëri na ci ay production yu bëri yoo xamante ni dama ko daan def au delà de gëm-gëm bi mu doon def ci yeewu leen bi quartier général par exemple su ma amee sujet wala invité Marianne laayoo ne ko Marianne lii ak lii laa am lan lañ ciy def mooy dem tourner reportage yëpp moo koy monter sax boppam c'est-à-dire du wër sax monteur tey vide bi euh, on le ressent là-bas ba pareil aussi Marianne nekkul woon rek arts martiaux la don liggéey Donc aussi il faut ma wax ko maanaam su la one, am ñu am ay reportage mais un problème au bras wala ma xam ne lii daf ma amal importance te peut-être duñ ci mën a dem dama koy woo mais Marianne sommes nés, mam munul nek. chaque fois bu ma ko soxlawee des fois sax ma ne ko defal ma ay papier nu Si ay discipline yoo xam ne bon football moom sawaru ci woon mais dina débrouillé wu làmb ji yóbbu naa ko fa te chaque fois su ma soxlawee benn affaire ma jaxle ma ne non xaaral ma wax ko Marianne mais daf si taxaw ko quoi donc pour man du woon rek arts martiaux mais nit koo xam ne la foog naa ni ko ñëpp seddalee dafa buggoon liggéey te du jàmbat te du tàyyi donc man des fois dama koy xool ma ni mais kii jàmbaar la parce que bon moyen yi nekku fii conditions yi ñu doon liggéey jafe na fi ñu daan dem des fois sori na. mais à chaque fois elle était là elle faisait les choses Je ne yeewu ne parce que Marianne Seva Euh, bi mu nekkee ci site bi sax mën naa ne affaire de sport la doon def mais nit ñu bëri taxuñu ko woon xam noonu mu nekkoon ak Mamadou Salif Gueye ñuy liggéey liggéey bu rafet foofu donc mu dem ci li nga xamante ni euh, moo di euh, ci TFM di fa def benn émission rubrique boo xamante ni ñëpp dañ koy xaar man képp ku xam ne xam naa Marianne rek mu ne ndeysaan émission bi laa ko xamee ma nekk ku ko bëgg ku ko sopp donc gëm-gëm mu nekk loo xamante ne lu riche la woon nekk na émission boo xamante ne gëw ma ne que nit mënoon na ko ñëw defaat Marianne dafa mos a nekk ñafekat

teel a xëy njëkk foofu li mu lu ko waroon si liggéeyam yëpp mu koy def te kenn du ko dégg mu kaas wala mu wax kooku defe naa bëggoon na lu muy def. bokk na ci ay njikko Mariane na lu mu bëgg da ciy dem ba jeex donc euh, nekkoon na koo xamante ne nit ku dëggu woon ciy def mais xamoon li mu bëgg li muy nekk nekk nekk xale xamoon na lan la bëgg ak lan la fan la bëgg a yegg. li mu si gën a neex nag te fédération judo def ko mooy dañu décorer Mariane ci benn championnat xam nga bu ñuy décorer nit. nga mer c'est parce que yow sa bop feesul man bima gisé ñu décorer ko jël ko jox ko cadeau ben portable bu rafet mané non ma tay nak nag judo def nañ loo xam buñ ko defuloon kenn du leen wax dara mais bañ ko defé defee nag dañaan ngala ngaalaama fédération judo et de son vivant lañ ko ko joxé tay mu génn adina mom c'est sûr que bañ ko ko joxé xolam sedd na kontaan na ti amna ci kersa mais loolu rek day firndel ni manqué na képp koo xam ne yaa ngi sol kimono surtout nak ngay def judo. maa ngi euh parce que bi muy décédé presque quelques jours avant dafa tomber won nag sama anniversaire jour Saint-Valentin. donc émission Saint-Valentin bi nga xamante ni koy def chaque année bu bu daw bi coordination yek reportage yek sujet yek ba ci invité yi lépp Marianne moko ko donné c'est-à-dire man dama toilettu rek solo ñëw tok le soir def émission bi donc on a bossé ensemble kérok euh, jusqu'à 5 h du matin té nonu mu ko défé ci émission bobu Non non la la ko défé quartier général Nous la ko doon défé yeewu leen bi par exemple chaque vendredi le doon ñëw def rubrique am gëm euh, mais toute la semaine moy coordonné moy japp ci invité yi moy un ci reportage yi donc évidemment euh na ñun ay professionnels lañu maa ngi liggéey ak ay professionnels euh, lu mu metti metti metti dañuy débrouiller euh, euh, def ba nit ñi duñu sentir vide bi mais ñun xam nañu ni ñàkk nañu koo xamante ni je ne pense pas que ba ci côté professionnel professionnel bi doot dinañu ko amaat ndax li mu ñu doon apporter ci côté ci côté liggéey bi. bi man dama doon ñew tok si télé bi duma liggéey duma ma def dara sama xol bi yëpp si Marianne ak sama xel sama xalaat donc ma tok ben weer bo xamanteni gisuma ko ma ñew xalaat ne dinañ gisante ke euh, safonté ak yoyu comme niñ ko tàmm di defee ma dem euh, li nga xamanteni modi di campagne pendant un mois ma nekk Thiès ma ñibbi si tey suba Marianne gañu donc nekk na mbetteel nekk lu met donc vide mom mënu ñak franchement ay jam lañ té lu dara waruñu lu nangu ndax koo da la da la jox te taguñu ko buy jël aussi du yeglé donc dañu delu rek santat yalla ci li mu def ndax metti na mais sante yalla ndax jam neena yalla ki mu bëgg lay tek naxar ki mu bëgg lay tek donc li ndogal la bu wacc ci dañ koy nangu nangu nañ ko ci sante yalla bu baax tay ñaanal mom bi dem neena ñun defuñu du suñu ngoro lu ñu fi borom bi baye mais du mariane aussi lu mu def ba borom bi jëlé ko fi donc mom mo xam li tax mu def ko donc dafa gën japp nañ fa mu dem mom yalla na yalla mot def motale ndawum fofu te ñun ñu fi dess aussi yalla bay ñu fi ba ci kanam xam ñu dekké diko saraxal mariane allah bay Mamour jël na ndam bi allah allah bay Mamour jël na jël na ndam bi vraiment Kubra Gara gorom bu baaxaam lañu mën a wax ci moom daal mosul am nekk na fi bennoon la ko mosul fi am problème ci kër gi man de mosuma ko gis ne mer naa kii wala meral na kii mosuma am fi mosuma ko gis ci moom te vraiment a fu mu tëdd tey yaasam yàlla maa ko jama fu mu tëdd nii nitu ñëpp bëgg ñëpp na ñëpp jàmm am diine am islam bi ñu gënee nekk xale on a partagé moment yoo xamante ni <laughs> suñu kër yi soriyantoowul woon donc bu ñëwee seet ma damay dem gunge ko dem foofu toog yàgg seen kër <laughs> léegi moom aussi pareil bu ñëwee gungewaat ma mën nañu def va yi ba nga xamante ni presque ay plusieurs fois mën nañu def ay va et di dem di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw ba ñu sonn mujj gi ñu dem tëdd. ñu nekkoon ici même euh, école de formation. <laughs> même groupe bi muy moom la àndandoo université ba fii mu toll nii promotionnaire am donc je me dis que loolu ku am ko def xamoon na nit mënoon sàmm ay relation donc mënoon rafetal diggante nit ak nit lu ñaaw doo ko ci dégg te loolu jafe na si jamono ji ñu toll nii te moom yàlla suturaaloon na ko mu ngi ci doon góorgóorlu Mariana daal li may wax naan nag fonkoon ay waajuram fonkoon ni mu bokkal mais mënoon nitam mënoon na rataxal diggante mais mënoon na rafetal diggante nit ak doomu aadama ñaan yu jote sax Mariana dina fexe ba diggante bi jag te loolu pourtant du rôle gone xale la certes ci ay âge mais li mu doon def du woon yëfu donc ma ne yàlla moo baaxal yàlla mooy xool li ko neex mu def ko ci jàmm def na ko donc dañuy sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla nag bi nga xamee ne soxna Mariam mii nii li ko waroon yëpp def na ko. def na li ko yàlla digal kon soxna Mariama mii aljana éternel taxaw na Cheikh Mamour Diop am nga ngërëm billaahi baay am nga ngërëma jaaraama baay Mamour Insa billaahi yow am nga ngërëma am nga ngërëma joie de vivre la ko ñëpp xamee woon kaf fo reetaan fu mu toog kenn du ñepp Marian Siba Diop duppe woon Taifin, Typhine ba sax Siba Star tamit ay expression yu xoromu yu ko daan ràññee ci bir nit ñi naanaan dal la na ba taxna même limu mu daan tooñee fii sax di kaf di wax nit ñi naan daana la même bi suñu mère di dund sa da nga naan toog di ko wax ci benen affaire bu ndaw rek danaa gis mané dafa adina da danaa gis dafa bëggon di solo di ku ñaw la affaire yi mel da danaan jékki-jékki kenn du xam fu mu jëlé tousem mais day ñëw santaane ko ñaw ñëw tongal maire bi li may wax ni yàgg na su ñëwee ne maire bi jox ma ma fay ñaw léegi maire bi des fois jig-jig moom tam mu fipp ne ko mais yow xanaa yow dong yaa fi nekk wala yow dong yaa yaa am soxla ba tax na nit ñi dañu war a bàyyi seen soxla di la jox ngay dem di fay di di fay ay ñaw mu ne ko maire yow da nga am benn affaire boo xam ne xamuloo ko maanaam nda raf la jigul daanaan te man daanaan laa te ba muy wax loolu yàgg na man rappelé tu ma sa lool ban année la yàgg na te kanaaw toujours ne ko raf la jigul daanaan kon war a jox may solo ko si meeku te man maa fi daanaan affaire yooyu ñii duñu dara ñun lay waxal donc ñii mën nañu liggéeyanti seen bopp mais man dee ma jox may solo ko si meeku ndax loolu mooy si kii ndax yow daanaan nga jur donc mu nekkoon lu mu gëmoon loo xamante ba muy wax loolu yàgg na mais dama ne sant yàlla parce que dafa gëmoon dara te xamoon ne am na fu mu bëgg yegg te tey ji buñ toogee ñu naan Mariane Mariane Mariane lu mu gëmoon la émission bu mu bu euh, euh, am projet émission bu tudd Coin XL defe naa loolu confiance bu mu amoon ci boppam rek mu taxoon mu bëggoon joxaat nit ñi confiance boobu parce que Marianne elle a tout le temps assumé ses formes ses rondeurs di solu sol bu yiw ñëpp naw ko ci dañ na ko ba fin la doon woowee boppam donc émission bu mu ñëwee c'était pour les grandes tailles xool lu ñuy soloo xool tamit seen alimentation parce que mën nga suis forte de taille mais nga suis à l'aise et en bonne santé donc je suis ko premier numéro bi yow et tout mais vraiment mon nek moment yo xamante dama ko suis sante ba tey faire parce que j'ai passé un moment inoubliable période de tournage bob

su may wax anecdote du ma fi duma fi jóge fii ba suba fii la may fekk mais am na loo xamante ni duma ko duma ko mës a fàtte suñu diggante Marianne lépp lu ma daan jaaxal sama wàll sama si si religion bi si si lu ma war a def des formules booy génn looy wax boo tiitee looy wax kii yooyu yëpp Marianne moom ko jàngal ba nii may wax ak yow elle me faisait des notes vocales parfois su ma jaaxlee sax su ma jaaxlee damay gisaat message whatsapp yi note vocal yi ma doon defar di ma wax booy dégluwaat message yi tu te rends compte que Marianne muy ay ñaan yu ma doon wax tout le temps ma koy def tout temps su ma jaaxlee del weer di lii day def lii day def lii loolu mooy souvenir bu gën a marquant bu nga xamante ni maa ngi koy fàttaliku si moom. yaa tukki ci far fi dëkkee Marianne ku neex la won motax sang sànq ma ni la euh, bu dul woon a gëm peut-être mën nga joy quoi mais la chance qu'on a qu'on a eu avec cette personne exceptionnelle parce que man Marianne dama naan euh, des fois dama ko dan wanaan jékki-jékki ne ko Marianne ya ma gën yow lepp ngay supporter te pourtant xale bu ndaw nga nga mel ni mag nii mu naan ma alaaji baye ma parce que man ak euh elle disait tout le temps que man may jëkkëram que mom moy sama mom moy sama jabar souvent sax gaay dañ ko doon filmer ci euh, ci couloir yi bu dee keneen la daal di ma koy envoyé ne ma kii nobatu la légui man la nopp et tout ça

donc euh, mu bolé mak mom mu né ma mam ñaata nga soxla ñaata sachet nga soxla mané ko à peu près temps la soxla non seulement mu défaral ma sachet yi mais ba paré offrir mako voilà té ko xamanteni ni xamnañ ni que peut-être voilà doole bi nekk fi woon bokul woon ko xamné ne na contrat de travail xëy voilà limuy gagner bari wul mais geste bobu aussi daf ma marqué ma xamné que ki nitu teraanga la té té du ci loolu rek en fait Mariam saa yi soxla wé da fay téw voilà di ma defaral jox ma ciuru mak donc vraiment c'est dama ko bëgg pour wax que nit ku la dañ voilà parce que joxon na ma mag ma lay wax ñuy confianté wu mu may ñuy di lu chaque jour de dire dem kër mais nañ ay rapport yu parce que nit ku ku aussi nit ku et puis elle était drôle aussi elle me faisait beaucoup rire mon mag suñu dama leen yéenay samay cure de jouvence ndax su ma nekkee ak yéen damay xam li xew ci town bi damay reetaan damay foo donc dama doon bëgg di nekk ak ñoom parce que maa leen xaw a mag tuuti mais dañ ma doon delloo aussi si si un peu li xew ci àdduna bi quoi di ko ñaanal yàlla xare ko ajana daal loolu daal lañ koy ñaanal voilà suuf sedd si kawam mu nekk ci ajana yi gën a kawe Euh, elle elle était exceptionnelle euh, dafa nekkoon nit ku doy waar koo xamante ni des fois dama naan sax mënu fi woon yàgg waaw Marianne mënu fi woon yàgg parce que euh, ay mbalagam sax amul benn boo xamante ni euh, maa ngi ko ci maa ngi ko ciy fàtte je me rappelle alaaji la ma doon woowee et euh, am na jour ñu nek sama auto Kumba Gawlo génnee ben ben way comme man dama am maniwu su ma wayu jambour mën naa ko modifier dugal ci luma nexé tout ça donc biir wayu bi ko bi dama ko wayal Kia yow la koy wayal donc du coup Marianne sonal ma comme temps King FM euh, commencé guñu won programme yi elle me disait yow comme man may man may man man sa jabar original bëgg na bo reprendre King FM rek nga tégal ma way donc à chaque fois ma dégg wayu Gawlo je pense à elle malheureusement également bi may reprendre programme King FM euh, fekk ko fi mais mun na netali ay anecdotes yu bari yo xamanteni ak ak Marianne la ci ko xamanteni dafa amone joie de vivre c'est-à-dire bu togon fi kenn du ñëpp. day expliquer affaire yo xamanteni da ngay ré ba dé té bu togué ci plateau bi day sérieuse yenn saa dañuy mbalaganté buñu xassé ba tok ci plateau bi du bëgg ma mbalak ko donc dama koy waxé affaire yo xamanteni mom xamna man xamna mais. da koy muñ du ko mun a muñ ko ci biir ci biir plateau bi Marianne elle était exceptionnelle Ndiaga nit ku nit ku nit ku nit la woon sax ku yéeme la woon. Marianne kenn ko fàtte kenn ko mos a fàtte dañuy ñaan rek yàlla fay ñu ko ko yàlla fay yal ko yàlla fay pour amour bu ñu jox pour pour bonne humeur bu mu amoon pour euh, joie. mbégte jàngat yi mu ñëw indi ko suñu dund defe naa ku ko côtoyé rek am na loo xamante ni jàngu ko si moom dañ koy ñaanal yàlla fayal ñu ko wàllu diine aussi mosulul yëngu bu baax foo ko fekk mu ngi yor kurusam di def ay ñaan lu mu xam si lu baax yéene na ko yeneen nit ñi di leen ko partagé ba émission bi mu doon def gëm-gëm rubrique am bi ak euh, quartier général tout le temps da nga doon gis ay anecdote si wàllu diine yu mu doon joxe defe naa mu loo xamante ni marqué na nit ñi bu baax a baax a baax. di ko ñaanal rek te di te di ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ko internautes yi euh, ñi nga xamante ni ñoo ko daan suivre ci gëm-gëm euh, tey def na un an biir suuf euh, ñu ñaan képp koo xamante ni rek xamoon nga ko wala déggoon nga ko wala gisoon nga ko nga ñaanal ko parce que voilà comme li comme j'ai dit rek Marianne dafa exceptionnel waaw ñaan gi mooy di ko defal fukki différence ak benn wala fukki différence ak juróom. ah jagleel ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare euh, yéene ko ko kon yàlla na ko yàlla defal aljana firdaws ajana yi gën a kawe euh, di ñaan yàlla ñi fi nekk ci mbokkam yàlla teg si loxo ba ñoom tamit ñu mën ko di ko ñaanal ba ba ba ñuy daje parce que àddina moom loola moom xam nga nit il faut mu génn àddina pour que ñuy mën a wax ay baax baaxam fi may jeexalee mooy loolu dafa war a tax nit ñi di nekk benn di góor góorgóorlu di bañ a def ak di wax yu ñaaw euh, wax yu ñaaw foo ko waxee kenn du ko fatte mais wax ju rafet foo ko waxee ñëpp téye ko ku yàbb rekk Euh, comme day bette mu fekk la ci lu baax te man leer na ma ni euh, mbir mi euh, bi muy ñëw fekkoon na Marianne ci lu baax parce que au delà de professionnel bi au delà de ku neex ki mu nekkoon ndax da daan mbalak fu mu toll au delà de nit ku baax ki mu doonoon Marianne nitu diine la woon dafa dafa fonkoon wasilaam fonk a cheikh fonk ay wér fajar gi dégg naa bu ñu ko daan jëli pour mu ñëw def si yeewu leen ci ginnaaw bis bi lay toog kenn du dégg Marianne diggante këram ba fii euh, ci télévision Futur Média bu ñu tourné ndekete Marianne mu ngi wérd euh, ñun on avait l'habitude saa yu ñu wàccee 11h sama kër la ñuy dem fa la ñuy toog ba añ ba julli tàkkusaan mu doog a ñibbi bu julliwaan tàkkusaan ba pare dama koy fekk ci fi mu lal di julli maak moom ñuy waxtaan ci ay affaire wérd euh, Marianne wérd bi baax na jox ma wérd bi man tam ma ne ko am na secret bi et tout ça avant même may dem mag Marianne moomu njëkk a wooyee alaaji

xanaa yëgal ne sëriñ bi agsi na yéen ñàkk ngeen taalibe génn leen ngeen waxante te pourtant moo gën a tuuti ci kër gi mais bu ko defee nag bu ñëwee képp ku bëggoon tëdd sax da ngay ñëw toog waxtaan wala mu ñëw toog sa catu lal ngeen waxtaan discuter et tout donc nekkoon koo xam ne vraiment am na lu mu bàyyi woon kenn kenn ku nekk ci ñun am na lu mu la bàyyil donc ku mel noonu la nee naa kër gu mu génn foog mu foog mu foog mu diis diis na trop mënuñu si dara nag parce que li may wax rek kenn ku ci nekk yàlla ba mu lay jox tàgguwu la donc buy jël aussi du yëgle donc jëlee na ko fi mu ko war a jëlee nag sant nañ ci yàlla parce que mënoon na ko fekk mu nekk ndax li muy nekk nekk xale tarbiyu na ay waajuram ba tey ji làq seen ngërëm donc damay sant yàlla côté boobu donc je me dis que fi ko yàlla jëlee metti na mais rafet na. bala muy trop pour ñëpp. nañu delluwaat ci fi nga la ñuy mujjee Marianne ba dafa mujjee fi nga bi TFM di def euh, ay rubrique euh, sur l'islam elle m'avait agréablement surpris vraiment euh, di kontaan si tamit parce que hommage ñuy def mooy wu leen ko te nit ki kenn ko te wóor na ma ni ñaan yi ngay ñaanal ni ma nga bar sax diko jot naan sama gaay ya nga sama gaay ya ngi ci affaire bi lolu dañ leen ci gërëm di leen ci sante di leen ñaanal yeen tamit yalla defal leen jamm ba li ngeen bëgg yalla defal leen ko ngeen yok ba yek ko si daraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam di leen gërëm di leen sante rafet nañ joxtu ne Mariane mom mi ngi fiir daw ci parce que dëjëm rek. ko fa ñëw rek ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci télé yi euh, homme de homme d'état kenn desul ñëpp ñëw man damay ñaan yàlla yàlla ma yàlla may loolu parce que tey loolu rek euh, xel yëpp dal nañ ki nga xamante ni euh, moom mooy sa sëriñ nga jébalu ci moom wekk ko sa lépp mu ñëw tamit toog seede la seede yu yu macha allah. donc dañuy ñaan yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla yokk leeram ak mboolem jullit mu fekk ji. mais maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ko di ñaan internet yëpp ñu ñaanal ko et yow tamit maa ngi lay masawu parce que ku ne xam ne diggante Ndiaga Fall ak euh, Marianne euh, Marianne Siva Diop donc maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ko et yàlla suñu borom euh, gën ko gën ko gën ko taxaw fa mu nekk et je sais qu'elle est en train de nous regarder markaj ji sirr moo ko woy sab saamu waay moom moo di saam bàyyi ña soo ko sàmm kenn du ko saam cay wuy si leen te nekk jaam ci seexi baay mi sañ ci saam ay soo yaram mooy dundam lépp dana leer ci kaw mu dañ lii moo waral ma xër ci baay ñas commencé tekki ay junjam baay ku ko bañ daañ la beral karwaasu der muy rey sa xol moo tax mu jóg romb daral ngir moytuloo ñi koy sikkal këram ja daa sa su saxaar moytu ñeeb la ci saxaar yow bu saxaar nga xam naqar royal gannaaw ca Dakar mbootam mi cay képp ku ko xeeb billaahi doo des ñépp di la xeeb ndax seexi baaya serwi ñépp ci penku xarfu ak ci fépp baari na kuy taal fanweer ak ñetti at rek la amoon doon ndaw waaye teewul mu doon gëstu bu baax ci diineem amoon na tamit ay projet ci wàllu liggéeyam taalibe Baay Ñas bi tey jii ma nga tëdd ca sëg ya nekk ca rufisk waaye ma ngay des ci xol yi ay tegtalam di wëy di jëriñ doomu aadama yi ay ju jëngool na ngeen ko xool na yi daw ngir man ko seet ndax dundu baay ji aka Ibadu ba Sadiq aka Sister M na leen sab bu leen dara këf jaangeen jëf wala boogees mais faydu mooy sëtu jàm dundal sariyatu te mooy dundal xaqiqatu xaboodi bi baayay atu xasoodi diis baayay atu kaatu ku jël asa ca